ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat tv ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tay ñuy waxtaane ci enquête bi média bbc afrique fësal ci affaireu frank timis bi aliou sall ak société bi ñuy dippee bp enquête boobee nag ñu dippee ko scandale à 10 milliards de dollars di ab njombe bu rëy boo xamante ni nag dañuy souligner du lu bees parce que ousmane sonko fësaloon na ko ci ab livre clédor sène defoon na plateau yu bëri expliqué ka boobu noonu baba ay dara moom itam ay live yu bari ci leeral dossier boobu noonu xëy na peut-être li bees ci enquête bi BBC def moy yen preuve yi ñu indi ci contrat yi Aliou Sall signé ak Frank Timis papier yi ware alal ju takku ay milliards de francs CFA yu Aliou Sall jot ci deal bi nga xam def ak Frank Timis te signe. signé di Macky Sall moko ko décrété lolo na looloo ci enquête bi mais loolu lépp dina leen ko leeralal ci vidéo bi wala dossier yi papier yi contrat yi virement yi mu nekk ab traduction en wolof ci enquête bi BBC def parce que dañuy leeral du suñu liggéey liggéeyu BBC la mais dafa am ay abonnés yu ñu solliciter gannaaw ba ñu publier enquête bobilé. ngir ñu def ci vidéo en wolof ngir leeral mbir mi naka la demee donc mu nekk ay explication yu simple pour que ku ci nekk mën ko taataan mën a xam lan moo ci ne ci nu mu gën a yombee ba mu clair ci bopp sénégalais yépp ci début enquête bi BBC dafa tàmbali ci présenter kuy Frank Timis Frank Timis di ab homme d'affaires di domou Roumanie Mom nak bokku ci ay opération minière yu bari fi ci Afrique Waye nak ay opération yu lëbëjoo manam ci mbuxum ak turiande Boy xol entreprise yi nga xamni ni yu ci bari dañ leen joxañ baaraamu tuuma ci ay ñaawteef parce que Frank Timis dafa am benn stratégie bu muy teg ci réewu Afrique yi mooy day ger ay politiciens yi nga xam ne am nañ ay ndombal tànk yoo xam ni contrat yi mu bëgg wala marché yi mu bëgg a gañ ci dëkk yooyu noonu da leen di ger pour que ñu yombal ko contrat yooyu noonu tuumaal nañ ko ci ay dëkk yu bari rawatina Afrique de l'Ouest te tamit ràññee nañ ko ci def ay ñaawteef jëmale ci tuut tànk yi dëkk yu bari def na fa ay ñaawteef fi dul jeex gis ngeen ci photo yi nii moo ànd ak président Sierra Leone ak Burkinabé donc ku miin Afrique la xam Afrique nu muy doxee di lal nag ay plan xool naka la ciy génnee mais lépp rek ci jubadi. ci vidéo bi nga xam ne nii nag BBC réalisé na ko journaliste bi booy xool dafa dem ci nit yi nga xam ni xam nañ Frank Timis mais tamit maîtriser nañ dossier bi ñeel pétrole ak gaz. rawatina nak kaawu Sénégal manam li tubaab naan les bonnes personnes mom nit yoyu la am c'est que ñom waxtaan ci affaire bi lé kenn ci doomi adama yoyu nonu muy philippe Cadwell mom da doon gérer ben trust offshore opat bu Frank Timis mom manam bo xolé li ëpp ci alalu Frank Timis mom moko ko gérer mooy waji gi ngi di gis ci écran bi bi ko ndaw ci def enquête bi interviewé mom sax dafa yému ci anam gi dossier Frank Timis bi amé fi ci Sénégal digganteem mak Aliou Sall na contrat bi nga xamni accordé nañ ko ko. en 2012 Frank Timis dafa créé benn société tippee ko Petrotim Petrotim boobu noonu réewum Sénégal daf ko jox ndogal ngir mu seet bërëb yi nga xamni ne nañ ni amna pétrole ak gaz zone yi ñu ciblé woon moy ci géeju Sénégal yi mais li yéeme ci autorisation boobu nga xam ne réewum Sénégal jox na ko mooy Frank Timis ak entreprise boobu noonu nga xam ne créé na ko amuñu benn expérience ci li nga xam ne nii mooy wàllu pétrole ak gaz d'ailleurs mbir boobu noonu moo taxoon au début ñu bari seen xel commencé woon tey parce que xam nañ ni lii ay naxaate la. ba tey ci enquête bi BBC def Abdoulaye Mbaye nekkoon fi premier ministre intervenir ci di xam ne ni effectivement entreprise bi Frank Timis créé muy Petrotim waruñu ko won jox autorisation ngir mu explorer xol baxam pétrole wala gaz am na Sénégal parce que amul ben expérience ci domaine bobu non expertise ci domaine bobu non amul dara lu ko mëna prouver mo xam ci walum set bi ba xam am na amu fi mo xam ci walum exploitation bi manam buñ ko gisé naka lañuy def bu doomi aadama bi mën ci jëriño amul ben xam-xam ci ñaari domaine yooyu mu amaat tamit benen bir Philippe Kadouel bi nga xam ni maîtriser na dossier yooyu noonu moom nee na mbir mi daf ko bett parce que li tax mu bett ko mooy jamono ñuy jox Frank Timis ngir mu explorer zone yi ñu njort ni am na gaz wala pétrole amoon na ay société britannique yi nga xam ne nii dañu coté en bourse maanaam am nañ dayo am nañ notoriété ci wàllum pétrole ak gaz postulé woon nañ ngir ñu accorder leen loolu noonu mais amuñu concession bi Petro-Tim lañ ko jox bi nga xam ne amu ci benn expérience loolu ba tey di wundu lëñbët ak def ñaawteef yiñ naroon ba tey ci vidéo bi ñuy fàttali Macky Sall promesse yi nga xam ne nii defoon na ko maanaam bi ko doon soog a fal mu ne day taxaw temm xeex lii di guerre ak détourné ak lekk alalu Sénégal ci lu jaarul yoon. te pourtant bi mu waxee loolu nit ñi tàmbali woon nañ ko gëm parce que dafa falu rek ne ñu def enquête ci marché bi nga xam ni jox nañ ko Frank Timis gannaaw ba ñu defee enquête yooyu noonu dañu ne concession yi nga xam ne moom la ñu accordeel Petrotim dañ ko war a retirer parce que teguñu ko fenn mais li bett ñëpp mooy Macky Sall après dafa autoriser Frank Timis mu garder concession yi boo xoolee après loolu am na ay manifestations yu fi amoon le 14 octobre 2016 ngir ñaawlu ndogal bi Macky Sall jël maanaam accordel Frank Timis ngir mu explorer zone yi nga xam ne ciblé nañ leen. mais fan la mbir yi leeree fan la ñu xamee ni mbir mi ab dil la bu làqu ci ginnaaw Frank Timis dafa nome ab post bu am solo Aliou Sall bi nga xam ni mooy rakku président ci industrie énergétique bi nga xam ni teg na ko jox ko fa post lan moo tax nag mu embauché ko ba tey ci enquête bi BBC def ab du mbay di expliquer que ni parce que xam na ni bu ko fa defee day am conflit d'intérêt Macky Sall la ci gagné Aliou Sall dina ci gagné moom itam léegi bu fa tegee rakam décret bi nga xam ne Macky Sall moom la war a signé pour que Franck Timis mën a explorer zone cible yi day gën a yomb da koy signé automatiquement te boo xoolee loolu moo am après Franck Timis dafa recruter Aliou Sall ci biir groupe bi mu créé automatiquement Macky Sall day signé contrat bi. mais BBC yamul rek ci ay kàddu dafa joxe ay preuves wane ay documents yu wane ni Aliou Sall ak Franck Timis dañu signé contrat contrat bi moo nekk nii ci vidéo bi ngeen gis papier yaa ngi nii contrat bi dafa wane ni moom aliou sall dañ ko doon fay 25 mille dollars manam 14 millions fukki million ak ñeenti lañ ko doon fay par weer diru juróomi at bu ñu calculer loolu lépp toll na ci 1 virgule 7 million de dollars maanaam 999 millions 600 mille de francs CFA presque 1 milliard aliou sall gagné na ko ci contrat boobu noonu mais yamu ci Aliou Sall Frank Timis daf ko promettre ay action yu tollu ci 3 millions de dollars manam 1 milliard 764 millions de francs CFA gannaaw deal bi nga xamni conclure nañ ko. loolu corruption mënu ko wessu BBC yamul ci loolu dafa dem won contrat bi ben spécialiste bo xamni mom te yëngu ci walum affaire fraude ak corruption ñu koy Jeremy Carver biñ ko wanee spécialiste bi moom dafa ne 14 millions de francs CFA yi ñu doon fay Aliou Sall chaque weer daf ko sax jaaxal parce que Aliou Sall ci boppam xamul dara ci wàllum pétrole ak gaz mook Frank Timis ñooyam kon naka lañ ko mën a fayee somme boobu en tant que consultant alors que moom jàngul loolu Aliou moom journalisme la jàng te journalisme sax bokkul ci ñi nga xam ni def nañ ci ay jaloore daanaka sénégalais yu ci bëri xamuñ luy liggéeyam xamuñ ban formation la def mais journalisme la def te bokkul woon sax ci ñi nga xam ne ñoo ci gënoon xarañ kon yow la nga jàng amoo ci xarañte gi war sax ngay dem di dugg ci gaz ak pétrole bal la ciy fay 25000 dollars manam 14 millions de francs CFA moo tax consultant bi bi ko laajee ci question boobu noonu mu ne daf ko bett trop mu dolli ci ne paiement yooyu nga xam ne Aliou Sall jot na ko mun ñu ko dippee lu dul guerre corruption mbuxum ñu ñëw ci atum 2016 ñu découvrir li nga xam ne nii mooy gaz ci zone yi ñu ciblé woon ba ñu gisee gaz ba pare mu am mbetteel Frank Timis jaay li nga xam ne mooy ay paaram entreprise bi dibé BP BP ci bopam mo jënd participation au Timis Corporation lu toll ci 250 millions de dollars manam 145 milliards 822 millions 500 000 de francs CFA mais yamu ci dé amna leneen lu gëna graw lu leen di Frank Timis ba mu jaayé parami ba paré dafa am ci vente bi contrat de redevance maanaam ay xeetu mbàquus lañ ko mën a tuddee maanaam ñeen fukki at yi nga xam ni mooy ñëw entreprise bii di BP day versé Timis Corporation maanaam Frank Timis neuf jàpp douze milliards maanaam juróom-ñeent jàpp fukk ak ñaari milliards de dollars te chiffre yooyu noonu mosuñu ko révélé kenn mosu ko xam sénégalais yi mosuñu koo yëg loolu ab xeetu ndàmpaay la. léegi nag gannaaw deal bi ñu ne dañuy jéem a nax BP ci ab communiqué mu ne seen investissement boobu noonu. day amal ay avantage ay njëriñ réew bii di Sénégal te ñu ne dinañ teg ay matukaay yoo xamante ni lépp luy corruption wala ay mbir yu jaarul yoon dañ koy xeex mais loolee lépp amul parce que document yi BBC Afrique fësal BP ci boppam xamoon na payoor gi Frank Timis doon fay Aliou Sall pour que ñu comprendre BP moo làqatu woon ci ginnaaw Frank Timis te bépp transaction bi ñu def corruption bi ger gi ñu ger Aliou Sall signature Macky Sall bi yépp

mais biñ ko jëmé interviewé mom ngeen di gis ci image yi dafa lànk du tontu ci laaj nga xamni BBC mi ngi ko ko doon laaj yéen a ci image journaliste BBC bi Top ko diko laaj ci kaawu Aline Sall bi diko laaj ci contrat yi mais faalewu ko nangu ci tontu. Sénégal ay délinquants yu mak lañu amal affaire. après lolu Frank Timis ci kàddu ay avocat am weddi tuuma bu ñu ci ñi layal accord bi am ci gaz bi ñu Sénégal dina tax suñu am wala encaisser ay milliards de dollars yu bari te loolu at bu ñu ne avocat Frank Timis ne Frank Timis booy investissement bi Sénégal sax dafa risqué dafa jël ay alalam def te wóorul woon sax pétrole wala gaz dina fi alors que loolu lépp amul woon explorer zone am pétrole am gaz ñu ne waaw def na ay sacrifice am indi ay experts fexe ba acteur majeur yi intéressé wu ci Sénégal mais avocat yi li ñu wax noonu taxawul parce que ci enquête du BBC bi dañu wane ay paiement yoo xamante ni nii amal nañ ko te loolu lépp corruption la Imagine ngeen ni gis benn email la bu ñu envoyé Trésor Shore bu Frank Timis bi ci email bi ñu ne dafa am ay bor ay taxes yu ñu ameel gouvernement sénégalais te Frank Timis day sakku ñu jox ko deux cent cinquante mille dollars Madame, 147 millions de francs CFA pour nous ñu fay bor bobé mais document yi BBC fësal moy xaliss bobu noonu Frank Timis sàkk won au won ci Sénégal ben société privée lañ ko versé société privée bobu mi ngi Agritrans Agritrans kan Aliou Sall Sall après versé nañ ko somme yu millions de francs CFA yoyu yëpp du ay sos papier yaa ngi nii BBC Afrique moo ko fësal moom ngeen di gis nii transaction yi versement yi email yi ñu échangé yëpp a ngi nii dafa leer. ci partie enquête bi fii ngeen ci gis Philippe Cadwell bi wane entreprise bi ma leen wax sànq muy Agritrans Aliou Sall moo ko papier wu entreprise baa nekk nii document yi moom ngeen di seen donc 147 millions yooyu noonu ak yeneen yi ñu ko envoyé waat yëpp ci société bi Aliou Sall créé lañ ko te li yéeme ci dossier bi mooy xaalis boobu noonu dañ ko présenté comme taxe mais doomi aadama wala ab entreprise privée naka lañ koy fay ay taxe taxe kay buñ koy fay état du Sénégal lañ koy fay askan wi jëriñoo ko loolu lépp di wane sàcc mbuxum ak jëfin goo xamante ne ni dafa ñaaw même ci gisin comme niñ koy defee saa su ne rek ñoom avocat Franck Timis yi weddiwaat ni seen client mosul versé Aliou Sall nga xam ne nii mooy xaalis ñu ne maanaam Timis Corporation mosul envoyé xaalis Agritrans bi nga xam ni Aliou Sall moom. BBC ba tey ci seeni enquête ñu prouvé benn saisi ci registre comptable ñoom seen entreprise muy. Timis Corporation te ci registre bobu noonu dañ ci 250 000 dollars ñu envoyé woon muy millions de francs CFA ñu envoyé woon société Aliou Sall bi BBC bi ñu compte entreprise bobu noonu dañu gis que ni paiement bi société Aliou Sall bi lañ ko envoyé muy Agritrans donc li dafa leer amul lam papier yaangi ni ngeen gis te preuve yi yëpp day wane ni ndeysaan sénégalais yi ay milliards de dollars waxuñu ay milliards de francs CFA mais ay milliards dollars yi sénégalais yi mom lañ jël sacrifié ko mu Frank Timis mo ci bénéficié wu ak entreprise bi di BP ak Aliou Sall ak Macky Sall ñenti acteurs yoyu nonu ñu sék mbir mi xeyna peut-être amna ñu xamul mais ñom ñoo donc liñ ci amuñu dañu bëgg seen dañuy discours mais seen yéene mooy askan dee ci ndool ngir lan sa yu ay élection ñëwé ñu ñëw neexal leen ay 2000 francs wala may leen ay ravitaillement pour defal leen manam ñom bëgguñu askan wi momal seen bop bëgguñu askan wi am parce que xam nañ ne askan wi bu momé boppam rek duñ ko mëna mënati tënk te ñom tënk askan wi mooy seen yéné moo tax ñi nga xam ne nii xam nañ Macky Sall ak ñi mu àndal ak njabootam xam li ñuy def ci njombe fii ci biir réew mi mënuñu ànd ak Macky Sall Macky kenn bañu ko mais ñàkk am cofeel bi nga xamante ni am na ko digganteeg sénégalais yi te defuñu ko dara le fait mu jël nguuram bëgg ci profito am alal moom ak njabootam pare dem France toog fa di gundaandaat loolu lu ñu mënte supporter waxoon nañ ko ci benn vidéo xeex Macky sàll dafa mujj dem ba nekk sax jaamu yàlla parce que nit koo xamante ni da ngay kompaloo sa réew koo xamante ni da ngay ñàkkuloo sa réew ay milliards yoo xamante ne nii mënoon na xeex ndóol ci biir réew mi kuy xoxatal sa askan kooku noonu yaa yées ci doomi aadama yi léegi nag lii am am na ñoo ko gisandoo ñun nag duñu tàyyi ci di yee sénégalais yi tant ñu ngi koy mën rek dañuy woy di ko def mais li leer ba leer mooy Macky Sall bu mandat am jeexee bu fi jógee dinañ ko topp ngir lan haute trahison maanaam war sa askan rakam ji nga xam ne ni yaakaaroon na ni bu asamaan si di wàcc sax bu teeku dinañ ko tëj kaso mu delloo ñu suñu alal ba dërëm bi ci gën a ndaw lépp lu ñu teg ci ginnaaw askan wi yàq suñu réew jël suñu alal di ko rawale dinañu ko fay bu soobee suñu borom. donc vidéo bi tey loolu woon ñu jagleeloon ko enquête bi média bii di BBC Afrique def yaakaar na ni leeral yi am na solo ci yéen ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon. ak beneen vidéo jàngeen jëf